am na ay xew-xew yu bëri yoo xamante ni jot na fa xew ci wàllum kaaraange ci biir lënd gi maanaam ci biir internet alors euh, ñun nag ci podcast Wolof Tech dañoo ànd ak euh, suñu équipe bi yëpp euh, jàpp ci projet boobu noonu parce que gis nañ ne lu am solo la chaque week-end chaque fin de week ñu def benn résumé boo xamante ni muy tënk lépp li nga xamante ni jotoon na xew ci euh, semaine euh, cyber euh, octobre cyber 2022 bi alors loolu nag ànd nañ ci ak Léna Samb ànd nañ ci ak Gérard Dacosta tey nag def nañ def nañ déjà ñetti tënk tey moo nekk quatrième bi moo nekk aussi dernier semaine euh, tënk maanaam dernier résumé hebdomadaire bi nga xamante ni moom la ñu def ci podcast Wolof Tech euh, ci octobre cyber 2022 alors tey nag ci résumé bi dañ ciy ànd ak ki nga xamante ni moo waral mbir mi ki nga xamante ni voilà kenn euh, naatable tout li nga xamante ni mu ngi koy def ci écosystème bi mu nekk Gérard Dacosta Gérard nuyu nañ la bu baax a baax dara la jàmm ci podcast Wolof Tech fay naa la bu baax a baax vraiment merci ci invitation bi merci ci vraiment li nga mm-hmm. jàppee ci combat bi waaw à ah, c'est-à-dire avec mom moom euh, événement je pense que c'est normal ñu n'est-ce pas. tout à fait. alors Gérard dañuy dem kon directement ci suñu euh, dernier résumé incha allah tey dinañ waxtaan ci ay points yu bëri euh, ci activités yi nga xamante ni def ngeen ko ci semaine bi passée mais aussi ñu waxtaan ci aussi ci perspectives yi mais aussi naka ngeen déjà sax naka ngeen gisee projet bi naka ngeen gisee événement bi euh, naka la passé dans son ensemble mais aussi lan moo nekk projet yi nga xamante ni ngeen ci war a ñëw ci kanam donc dinañ waxtaan ci affaire yu bëri incha allah d'accord alors ñu dem directement kon ci suñu résumé numéro 4 octobre cyber 2022 alors Gérard ci semaine bi ñu passé déjà euh, ci lundi bi ñakoon ah, ngeen def benn activité boo xamante ni bu am solo la mu nekk aussi comment une personne mal intentionnée peut utiliser les informations que vous partagez alors ngeen andonti ak Serigne Mustapha Sy ndoy waxtanti euh mais vous que man bi ma gisee OSINT xaw ma exactement mais je pense qu'on aura l'occasion que leeral nañu exactement affaire boobu ci euh, rapidement alors euh, lan mo xewoon ci activité boobu nga xamanteni mom moom ngeen def ci lundi 24 bi avec euh, Serigne Mustapha Sy ndoy. ok donc merci si si si parole boo ma donc euh, euh, webinaire boobu noonu dafa nekkoon webinaire bo xamanteni c'était très intéressant parce que webinaire boo xamante ni euh, dafa doon présenter ben genre lu ñu woyé framework xawma nan lañ koy waxé ci olof. mais ay ensemble ay ensemble outils ak procédures, ay règles yo xamanteni ni day permettre par exemple pour nit ñi di collecter ay données ak ay informations légui à partir d'outils gratuits ou outils payants ça dépend euh lan moo tax ñu créer loolu loolu intention bu njëkk bi mooy pour dimbali nit ñi parce que collecte de données yooyu ñuy def ak yooyu noonu yëpp day permettre par exemple ñu mën a répondre aux besoins nit ñi lan la ñu soxla lan la ñu bëgg mais dans la vie comme ni nga gisee toujours di nga gis ñoo xamante ne dinañ utiliser outil bi pour pour beneen affaire dafa mel ni comme paaka paaka tey dañ ko jël utiliser ko pour vraiment faciliter la vie des euh, nit ñi mais amna na ñuy jël paaka pour def ñaawteef. si si donc si, même chose si. la ak ak outil bi ni cadre bi manam man tay suma doon wowe euh au sein dama koy woowee genre ben cadre la cadre bo xam dañ ko tek vraiment pour mën faciliter la vie des personnes mais malheureusement nit ñi dañ koy jël collecte de données yoy non diko jël di mën def ay ñaawteef ci nit yooyu noonu. à la fin parce que par exemple nit dé déployer outil yam -hmm. après outil bobu nonu Euh, day ne nit ñi ñëw leen yéen ngeen ngeen di partager ay affaires par exemple mun naa ñëw ne dama créer benn plateforme bu may permettre euh, di utal liggéey et derrière maa ngi am seen information yoo xam ne mun naa ko jël di ko jaay wala mun naa ko jël di ko jox ay nit yoo xamante ne maa intention ñu ñëw sa kër def lay ñaaw teef affaire donc euh, loolu la d'une manière général donc kii dafa doon wone vraiment naka la uti yooyu noonu gars yi di ko utiliser pour di def ay ñaawteef alors que du du objet outil euh, cadre bi donc euh, loolu moo qu'on objet webinaire. bi. Machallah. ça c'est je pense que c'est c'est très top et je pense que webinaire bu am solo la euh, te euh, waxtaan ci genre outil yu mel noonu baax na trop ak souci bu nit ñi bañ aussi bañ désorienté li nga xamante ni moo tax a outil comme ni nga ko waxee rek pas que c'est pour dagg soble dagg viande dagg yu demee mais des fois am na ñu utiliser pour def le bon donc bah na trop ñu artu leen aussi ci outil yooyu nga des fois nit ñi dañuy dem sax ba fàtte ne outil ba fàtte sax li tax a jóg outil quoi donc je pense que bah na trop ñu redresser leeral affaire yi ba gars yi xam euh, lan lay outil yooyu jël mu nekk outil outil au sein n'est-ce pas la. au sein la cadre la quoi. cadre la framework la quoi ok. ok si xam naa ne sax bu fekkee ne mën nañu am ay documentation ci euh, cadre boobu noonu ci framework boobu noonu ça sera très bien ñu partager ko aussi si euh, notes yi quoi incha allah nest pas. voilà. Mhm. ok alors alors alors ba léegi euh, ci ci ci ci dañuy continuer ci événement yi ngeen organisé mu nekk ñu ci mardi vingt cinq bi euh, amener aussi ben événement pour ñu organisé mais événement boobu man dafa ma dafa nekk lu am solo je pense parce que euh, kenn ñëpp xam nañ ne tey fi mu toll nii numérique dafa toll foo xamante dafa sori dafa jéggi tayoo sax tu vois ñëpp a ngi wax numérique numérique le digital et ainsi de suite mais amna ci ay jafé jafé yo xamné dañ koy gis lu ci mel fake news tu vois moom moo gëna gën a retiré moom ma gën a sama attention sax ci sen sujet boobu noonu ah, te nit ñi war nañ xam nak moy fake news war nañ voilà war nañ ci war nañ ci def attention bu baax a baax alors ci mardi boobu na ngeen waxtaan ci adaptation des médias à l'ère numérique fake news ak créativité ak opportunité yi nga xamanteni ni na ci am donc ngeen defoon ko ak Mamadou Diagne alors lan mo moo euh li nga xamanteni ni jot na génn ci waxtaan boobu ngeen def manam webinaire boobu non ngeen amalon ci mardi 25 bi voilà comme ni nga ko xamee ni nga waxee euh, mardi mhm. euh, def nañ webinaire bu assez intéressant parce que mhm. lan moo nekkoon caractéristique bu njëkk bi mooy nit ki dafa mhm. nekk si biir domaine bi en fait moom de base dafa nekk boo xamante ne il a été si CETSID ça veut dire benn journaliste plein après boo xamante ne dafa réorienté wu vers le numérique donc moom tey xam na lan mooy information xam na lan mooy média xam na tey lan mooy digitalisation xam na lan mooy médias sociaux et donc nit ki comprendre na enjeu en fait donc moo taxoon webinaire c'était tellement intéressant parce que nit ki lépp lu mu doon wax daf ko maîtriser daf ko maîtriser et permettre na d'abord dafa ñëkk a def cadre bi cadre bi mooy dafa ñëkk a wone euh, dafa ñëkk a lim lan la Sénégal disposé comme média média yi est-ce que euh, ñu ngi vraiment Euh, si si si si nouveau marque numérique bi maanaam est-ce que médias yi nekk nañu à la hauteur si si si actuellement lan la dëkk bi bëgg lan la monde bi bëgg joxe na ay exemple yu pertinent wane que Europe da gis ay maison d'édition yoo xamante ni contenu ñuy am sen propre contenu la bokkul ak fii Sénégal xamante ne nit ki day partage ñëpp ñëpp partage même contenu mais foofu nit ki day am propre contenu boo xamante ne da koy jël mu monétiser ko de telle sorte que contenu yooyu noonu moo koy permettre mu am xaalis alors que fii par exemple da ngay gis ñu ne par exemple j'ai organisé Octobre Cyber mu bind si rek nee nit jël même contenu Google, dugal partager ko si ay sites différents donc amul diversité amul amul multiplicité amul loolu noonu te fini fii nii expliquer na que média ak maison de presse ak yooyu du investir carrément si si si si si digital bi parce que pour nous, genre tey par exemple investir si loolu nga mën convaincre tey dirigeants yi pour ñu investir si si digital ay certaines sommes yoo xam ne dañ koy investir par exemple si ressources humaines wala si yeneen matériels yi donc day xaw a day xaw a kii si seen xel quoi. si si si si donc du coup expliquer na enjeu yooyu noonu. et lan moo gënoon intéressant moom tey nii RTS lay liggéey donc xam na enjeu yi comprendre na enjeu yi te tey nii moom jox nañ ko benn poste stratégique biir RTS mooy poste boo xamante ne moom mooy responsable digital xaw ak informatique lépp luy gérer foofu donc du coup. tey nii moom mu ngi développé benn aspect côté boobu noonu si fu mu nekk fu mën a gën a développé boobu noonu expliqué na et expliqué na genre tey ni par exemple comment médias yooyu noonu mën a participer si lutte contre fake news yi lutte contre campagne de désinformation yi ainsi de suite et loolu moo nekkoon loolu moo nekkoon intéressant parce que tey nii aujourd'hui ñun gis nañ ñaata nit ñooy seetaan euh, télé mais est-ce que tay médias yi buñu continuer ak télévision yi continuer ci télé télé rek est-ce que dinañ am public buñu bëgg parce que jeune public yëpp ñu ngi biir internet. Oui, ça c'est vrai par exemple c'est c'est l'occasion ñom ñu créer amna télé yu ko def hein, au Sénégal ça mom il faut que ñu remarquer ko signaler na amna télé yu bëri yo xamanteni créer nañ ay contenu en ligne yuy permettre tay jeunes yi ñuy mën di xol mais def na. des na tey par exemple ñoom war nañu mën a parce que tey nii wax na tam beneen exemple bu bu doy waar mooy tey par exemple nit ñi suñu bëggee am l'information dañuy dem si ay sites yoo xamante ne c'est pas des sites yoo xamante ne c'est avéré maanaam ay Instagram euh, ay ay ay ay Twitter sax tane na parce que Twitter day joxe la bonne information presque mais ay Instagram ay genre euh, Facebook foo xamante ne par exemple foofu tay fake news bi c'est pas assez contrôlé Facebook mu ngi def un combat sur ça commencé na ko mais ay Instagram c'est pire da ngay gis nit ñi foofu lañu dem gis ay contenu yu partager rek commencé di ko donc joxante information yi quoi. voilà alors alors que tey maison yooyu noonu tey ni presse yu ñu am organes ak kii médiatique yu ñu am fii au Sénégal war nañu mën a créer benn genre climat de confiance créer benn cercle boo xamante ne tey par exemple ku bëgg am bonne information war na mën a ne ah xaaral ma dem consulter site RTS xaaral dem consulter site TFM de suite ba journalistes d'investigation ils sont bons en numérique maîtriser outils di articles au Sénégal ñaata journalistes la am yoo am nañu ay blog journalistes ñooy def ay podcasts ñaata journalistes ñooy def yeneen affaires di créer ay newsletter ak yeneen affaires yoo xamante ñu créer ay contenu en ligne. Mhm. dañ koy compte, parce que les ils sont toujours si ay bloc notes ak alors il y a un réel potentiel sur les plateformes réseaux sociaux Ils les permettent, par exemple yow en tant que journaliste mun nga créer genre climat de confiance ba nga par exemple képp euh, sécurité wala si cercle consulter ñun mhm. euh, pour ñun lan mooy suñu suñu rôle euh, ñun concept pour SN mooy loolu tey bëgg nañu tey Sénégal même en Afrique ou partout dans le monde li suñu vérifier la bonne source wala la bonne information ci cybersécurité danay ne xaar ñu dem xool waa route SN wala xaar ñu dem xool waa Wolof Tech ainsi de suite donc mentalité boobu la ñu bëgg développer donc en gros loolu moo nekkoon webinaire bi et webinaire tellement riche

pour combattre euh, affaire yi nga xamanteni yépp ay njaaxum la yu am ci ci ci ci réew mi ak yeneen réew yi hein, tu vois te nga xamanteni ni média mën na ci participer bu baax a baax et je pense que ñun ñi sax boo xoolee li ñuy def nii man ñu bëri defaat may wanaa man yow est-ce que journaliste nga wala nanga mais non je me journaliste ah mais je me dis que rek dama gis benn espace bu vide boo xamante ni kenn nekku fa nekk voilà xaw na vide ma ne xaaral ma indi sama pierre ci euh, voilà pour jéem a voilà euh, man tamit conscientiser nit ñi fexe fexe ba ñëpp xam donc objectif bi loolu rek la quoi fexe ba nit ñi xam et je pense que pour nit ñi yeewoo rek Euh, dégâts yu bëri mun na mun na wàññeeku incha allah n'est-ce pas. alors je pense que euh, ci mercredi bi aussi am na yeneen activité beneen activité pour Ah, ma am solo bo xamanteni def ngeen ko et c'était en présentiel c'est-à-dire nit ñi dañoo ñëw fekk si leen ah, ngeen and ak ñoom physiquement def ay ay waxtaan tu vois te te na ko defee foofu ci AFI AFI Lyon nekk benn école boo xamante ni mu ngi nekk fii Dakar alors ngeen def fa nag benn jotaay boo xam ne bu am solo la ngeen waxtaan ci ah, attaques yi nga xamante ni moom la ñu faral di gis ci réseaux sociaux yi ak naka lañ mën a def aussi ba wàññi ko alors lan moo nekkoon yi nga xamante ni moom moo génn keroog ci débat boobu nag nga xamante ni def ngeen ko AFI Lyon euh, vraiment euh, événement bobu dafa nek événement bo c'était tellement intéressant parce que c'était en physique parce que événement yu bëri en mm-hmm. ligne lañ koy def mm-hmm. mais bu appui bi pas c'était en physique parce que en fait dañoo déplacé ou dem fekk suñu cible cible bi tamit dafa nek ay ay jeunes yo xamante ne ñu ngi ci ben école di jang ñu fekk ci len fofu parce que xam nañ jeunes yi ci ils sont toujours en ligne ñu ngi am interaction ak réseaux sociaux donc du coup ñu dem foofu noonu pour discuter ak ñoom ñu nekkoon ci benn amphi man mi sax dama ñëw dab équipe bi parce que dama nekkoon di di job après ma ñëw dab leen mais ñoom au départ teg nañu cadre bi expliquer lan mooy réseaux sociaux plateforme affaire lim danger yëpp euh, teg contexte bi qu'il faut euh, parce que tey euh, dafa am approche boo xamante ne tey ñun approche boobu noonu la ñuy commencé di jël mooy d'abord on commence par faire peur mm-hmm. et après ñu doog a rassurer donc faire peur bi pour a conscience yëkkati seen conscience wane leen que lii nii ngeen di teg ni amul am la preuve la présidente de Dara euh, mademoiselle démo si étudiants euh, kan volontaire jox ko mu jox ko mail de phishing et après la personne connectée aussi mail bi et derrière nit et elle a pu euh, récupérer le euh, login le mot de passe niki. Mhm. et ça, bi étaient était étonné oh ouais comment tu as fait ça Et ainsi de suite mais lan du déploiement, ñu n'est pas juste pour qu'on a des compétences pour défendre euh, mais derrière cela il y a won pour prise de conscience parce que dans la vie ñoo xam des nous. qui bopp tant que mhm. gisuñu duñu mhm. ça c'est vrai donc du coup c'était l'occasion de nous dire que nit mën na contrôler jël sa mot de passe ak sa kii à distance à travers benn message bu simple mu jël ko donc après ni ñi jël conscience après suñu par salle bi après dafa yëngatu woon après si laa jël la parole rassurer leen nee leen ko ok attaque bi nii la ak nii mais tey mu ngeen protéger aussi attaque bi bu nekkee activer ngeen authentification double facteur maanaam mooy en plus de am sa lien login ak sa mot de passe da ngay defaat benn troisième élément bu lay permettre nga protéger wu mooy authentification double facteur après mes expliqué mais ne fan lañ par exemple si seen plateforme yi naka lañ koy amee et y' a eu trop de questions beaucoup d'interactions et c'était vraiment ben euh, c'était c'était vraiment activité bo xamante daf ma marqué parce que ñi ngay ñi ngay waxal ya ngi di gis directement et yaa interagir ak ñom directement. si si et exactement donc ababakar sila tamit jël mhm. expliquer na lan moo nekkoon eh, lan mo nekkoon eh, comment dire eh, ingénierie sociale. Mhm. expliquer naka la ingénierie sociale di fonctionner après ñeneen ñi tamit appuyer ko et tout euh, c'est la même chose après Abdou Aziz Diallo moom moo terminé parce que moom digital manager la donc mu expliquer comment digital bi est intéressant et comment nit ñi tam di ko utiliser pour def ay ñaawteef ainsi de suite donc vraiment nit yu nekkoon foofu jour boobu noonu ils ont mhm. tellement assuré mhm. et y avait Léna modératrice bi et c'était une fierté mu dellu si ancien école am programme événement et tout. vraiment voilà c'était vraiment formidable. Mhm. Euh, participer si événement après on a clôturé en et il y avait mhm. tellement mhm. d'étudiants étudiants xam ne dernière heure. et ça a été une satisfaction pour nous. Ouais. Non, mais je pense que ça c'est une très bonne initiative parce que interaction directe bi aussi euh, dafa am solo bu baax a parce que dina permettre déjà ngeen mën a saafowante ak nit ñi euh, gis leen directement mon a jël ay parce que euh, comme ni ma koy waxee rek étudiants yi nekk na ñoo xamante ni suba ñoom ñooy nekkaat ci yeneen poste de responsabilité ci entreprise yi donc tel ubbi seen bët aussi ci yenn pratiques yi baax na torop parce que kenn ku ci nekk su demee ci entreprise am dina am bàyyi xel yu bëri bëri bëri parce que li ñuy waral di wax rek suñ sécuriser ñëpp rek sécurité bu baax mun na am c'est-à-dire bu fekkee ne benn maillon bu faible dafa am ci biir rek mun na indil njaaxum ñëpp alors nañ fexe nag donc moo tax li ngeen def ni am solo fexe ñëpp conscient ci affaire boobu noonu et je pense que bu ñu ko defee euh, te commencé ko déjà ci université yi moo gën a am solo tey jii nii parce que ñooñ ñooy dem suba nekk responsable yi sécurité yi ci ci euh, entreprise je pense que euh, am na solo trop ñu remercier bu baax Abdoul Aziz Diallo Mariette Diédiou Ababacar Sylla ak Lena Samb yi nga xamanteni aussi ak yow mi nga xamanteni ni nekkoon ngeen foofu euh, di partager seen xam-xam ak seen expérience ak étudiants yi alors je pense que mercredi bi aussi nekkoon na nekkoon na mercredi bu ama am solo bu métti nag aussi parce que am na yu bëri ñu ci def déjà ñetti événement je pense après événement boobu amoon na aussi cybersécurité un enjeu primordial pour toutes les nations ngeen def ko euh, nga ànd ci yow mi Gérard ak Luc Chrétien Cher Abdelmeng, Sen, Abba Ababacar Sidir euh, Yalkoy je pense hein. alors lan moo voilà lan moo euh, webinaire séminaire nga def ko ak lan fa comme xam-xam ci ci voilà webinaire bon na webinaire yu webinaire organisé depuis octobre cyber parce que non seulement il y a eu une plus forte taux de participation, -hmm. parce que il y a euh, ñu bëri connecté ne euh, jour boobu noonu am amené presque 50 50 personnes. Mhm. d'habitude nous avons donné yem à ay vingt cinq ba mhm. trente mais mhm. jour il y avait tellement de connectés. parce qu'en fait il est et et tamit même ministère de l'économie numérique a nañu benn personne pour participer. Masha'Allah. allah macha allah si si webinaire il parce qu'en en fait webinaire bi dañoo xool fan yi gis ngeen Sénégal dafa euh, beaucoup de d'organismes yo xamante état bi moko mom ont été visés par ay ay ay attaques ay attaques en ligne ay attaques yo xamante vraiment euh, amna yo yoo xamante ni gor na leen am na yoo tax na à genoux et tout donc loolu mo tax ñun tay bo xolé même titre webinaire bi sax bokkun vraiment ak titre général bu ñu lancer au départ mais comme ni ñu waxee ñun tay dañuy avancer suivant la méthodologie agile donc tay gis nañ que ñu ngi wax affaire de de cybersécurité et tey am na contexte bu xew am na loo xew na donc il a fallu que ñu def benn webinaire spécialement boo xamante c'était spécial mhm. pour loolu loolu moo taxoon ñu doon et l'idée c'était que l'autorité yi ak personne yuy participer parce que le webinaire bi c'était plutôt pour ñoo xamante ne ñooy décideurs yi mooy plutôt pour décideurs yi ak personne yoo xamante ni sont influents moo taxoon webinaire bi ñu def ko et l'idée, c'était que pour nous, nous avons conscience danger. On a invité ce sont des intervenants de classe mondiale. Le chrétien, il est, il est en France, entreprise, entreprise de cybersécurité. a été conseillé si ay projet yu le pour gouvernement français à Nyenen. Mm-hmm. monsieur euh, Mbengue moom est ici, ici Orange Finance. Euh, beneen intervenant monsieur Sène moom tamit RCC la euh, mooy AXTA Sénégal assurance boobu noonu donc ñu amaat tamit beneen ingénieur bu mag boo xamante ne Mali la ñu jógee euh, monsieur Sidi Yahoul moom tamit euh, consultant la expert ci cybersécurité pour foofu compte Mali donc waxuñ société am parce que pour des pour des raisons de confidentialité mais. webinaire bi nii dafa regrouper ay personnes yoo xamante ni vraiment. Mhm. Euh, ñu ngi ci beneen niveau. ok et nit yooyu noonu ak ba pare ak responsable ministère bu ñëwoon tamit. bokk ci mhm. moom tam ñu intégré ko à la dernière minute. et ministre bi moo ko yónnee directement daf ma woo carrément mu ne ma ministre bi moo ko mhm. directement bu mu ñëw euh, vraiment bokk moom waaw moom bu mu ñëwee il a présenté en fait stratégie nationale euh, de cybersécurité boo xamante ni état bi daf ko mettre en place. pour vraiment protéger euh, cyber citoyen yi donc sa a été webinaire boo xamante ni de haute facture ça été réussi parce que ñun lu ñu si bëggoon mooy nit yu ñu bëggoon attirer leur attention bokkoon nañ si et tamit y a beaucoup tamit de jeunes qui ont participé pour mën a comprendre gis vraiment euh, nu mu demee mm-hmm. et webinaire bi ku si nekk dafa présenter benn sous-thème si en fonction thème général mooy cybersécurité en enjeu primordial pour toutes les nations donc bosu lu chrétien bi dafa wone mooy trois piliers de la cybersécurité mooy technologie bi process bi ak euh, l'humain maanaam nit ki nit ki lan mooy place si benn si sistème d'information mu wone tamit technologie bi lan mooy lan lan mooy place si système d'information mu wone tamit process lan lay indi si système d'information donc mu indi lien entre ñett yooyu noonu wone comment ñett yooyu noonu mën booloo pour mën a apporter benn sécurité bu gën a bu gën a taxaw après euh, Mbengue tamit monsieur mbeng jël tamit gi euh, wax lan mooy déroulement contrôle de sécurité sur les applications systèmes et bases de données parce que boo xoolee ñoom ñooy def affaire de Orange monnaie et ainsi de suite donc expliquer wane vraiment ay concepts yoo xamante ni concept yu kawe sécurité après monsieur Sen tamit jël. wala tamit lu ñuy woowee renforcement de capacité en matière de détection en matière de détection attaque donc loolu yëpp mu expliquer ko mu expliquer loolu noonu donc euh, wana lan mooy durcissement d'un réseau naka lay mënee kii naka lay mënee naka lay mënee taxaw donc après moom bu pare paree si di monsieur Sidi Yakul tamit wax wax si lu ñuy woowee tamit encore framework mooy lu lay expliquer sànq waxoon nañu framework moo bi ñëwaat na donc moo boobu noonu tey nii par exemple framework toujours ay concept la cadre la moo nekk cadre boo xamante ne vraiment moom nga teg pour mën a teg au moins loo xamante ne minimum de sécurité si sa si sa ESIC après tamit kooku waa ministère yónnee mooy monsieur Cheikh Amadou Bamba moom tamit mu wone stratégie bu état bi teg en place en matière de cybersécurité donc webinaire bu bu bu bu guddoon mais nit ñi mm-hmm. toog nañu xaar parce que c'était intéressant et vraiment su ma naroon détaillé lépp lu gars yi wax ci tibi ci biir du ñu parce que web bi guddoon trop les ñu ngi monter enregistrement bi pour après vraiment parce que idée enregistrement était c'est que même octobre cyber bu jeexee dañu créé benn web TV boo xam ne après hmm. ak nit ñi di dem di seetaan quoi non mais je pense que je pense que amna solo trop et ni moko waxé ni nii euh, je pense que nit ñëpp dinañ euh jot ci enregistrement bo pour mun ko dégluwaat tu vois euh, parce que amna solo trop parce que bu man bu ma seet xoolee ni sax je pense que euh, da ko def d'une manière progressive yoo xam ne ni kii dafay wax ci li kii wax ci point bële kii wax ci point bi et c'est un peu chronologique sax bo xoolee ni ngeen ko defé quoi donc dafa top ben euh, ben benn benn logique bo xamante ni c'est normal alors je pense que tay rew bu mun nek ci aduna bi ñu wax ci walum sécurité dafa am solo trop quoi que sécurité fi mu li mun a yàqal réew li fi mu mën a yóbbu réew aussi am na solo trop quoi tu donc donc du coup waxtaan ci nekk na loo xamante ni lu am solo la et je pense que nii Euh, webinaire bi ngeen def nii séminaire bi ngeen def nii ak nit ñi nga xamante ni ay ay personnes clés la je pense ay nit ñoo xamante ni li ñuy wax xam nañ ko bu baax parce que non seulement am nañ xam-xam bi mais aussi am nañ expérience de dund nañ ay expérience yoo xamante ni permettre na leen ñu mën a partager ak nit ñi ay connaissances yoo xamante ni euh, dina leen mën a jëriñ ci seen liggéey dina leen mën a jëriñ ci seen vécu ci seen àdduna ak lépp et je pense que donc euh, séminaire bi nit ñaa koy xaar bu baax a baax alors Gérard Ginau séminaire boobu noonu defar ngeen beneen ci mercredi bi ba léegi non mais xam naa mercredi bi sor sonoon nga trop sonoon naa trop mhm. parce que en fait soo xoolee webinaire beneen ñu wax sànq ak beneen webinaire bi ñoom ñëpp ama ñëwandoo en même temps bah ouais bah ouais j'imagine donc, ah donc donc donc du coup mhm. euh, tey nii di nga di nga di nga ma laaj tey naka laa def ba participer si ñaari yëpp en même temps donc ñaar yooyu noonu yëpp il fallait que question boobu que yaa ngi may spoiler parce que question boobu bëggoon naa ko laajte su <laughs> ma paree mais crédit wax ne la yow comment tu as fait. <laughs> non mais non non mais ouais. Uh-huh. bon man moom man mi sax ba léegi maa ngi laajte. Uh-huh. naka naka laa defee ba réussir coup de maître boobu noonu quoi. mais comme ni ñu waxee passion moom passion boo ko amee moom. Mm-hmm. dara dara du la dara dara du la téye quoi. donc en fait man dama pré dama ut ñaari ordinateur léegi ñaari ordinateur yooyu noonu euh, benn bi dam si inscrire euh, dugal sama ñaari compte yi léegi beneen ma démarré réunion bi mais tam ma démarré réunion bi léegi l'idée c'est que beneen bi modérateur laa woon beneen bi intervenant laa woon léegi boobu noo xam te dama nekk modérateur genre dama teel a mettre le cadre léegi di bàyyi gars yi commencé di dérouler léegi beneen boo xam te ne man maa nekkoon intervenant bi boobu dama vraiment concentré aussi du coup Mhm. pour mun a joxe vraiment samay. Euh, mhm. parce que parce que deuxième webinaire beneen bi c'était vraiment orienté sur ONG té man fu may liggéey la. Mhm. Euh, en partenariat ak ñooñu lañ ko def vraiment ay ONG ñëw bokk si. et on avait plus de 60 personnes yo xam ils étaient parti euh, yu yu bokkoon webinaire bi. macha pour pour allah si si non mais je pense que je pense que lool day wane organisation day wone aussi xam li ngay def boo xamul li ngay def boo xamul li ngay wax dina métti nga organiser sax def organisation bu baax pour mën a doxal loolu yëpp donc cela montre que euh, xam nga bu baax li nga xamante ni moom ngay wax mais aussi am nga benn organisation boo xamante ni dina la permettre nga mën a euh, doxal bu baax liggéey bi nga xamante ni moom koy moom koy defal nekkul mbiru génie nekkul mbiru jinne dara mais c'est juste organisation ak aussi xam li nga xamante ni moom ngay wax tu vois loolu moom xam naa ne tey secret la boo xamante ni Gérard jox nañu ko te ñun ñëpp dinañ si jàng je pense quoi. mais Gérard ah vas-y ah, ah, mhm. et comme nu may waxee rek la passion moom bu nekkee si li ngay def moom. loo mhm. sentir fatigue bi quoi. ça c'est sûr man jour boobu j'étais comme kenn koo xam ne j'étais drogué. Mhm. maa ngi doon gérer ñaari plateforme yi en même temps jël benn écouteur branché si fee beneen ma def sama haut-parleur. non mais Gérard waroon nga jël photo nag quand même waroon nga jël <laughs> Pour pourtant jël naa photo ñaari machines yi ak ñaari web en même temps. bah oui ça c'est sûr il faut partager ça après ouais. <laughs> mais allez, alors en fait même si mercredi boobu noonu def ngeen euh, webinaire boo xamante ni moom moo comment protéger sa vie privée sur internet maintenant naka lañ mën a aaree suñu euh, suñu dund euh, ci biir internet alors ngeen àndoon ci ak Aristote euh, Aristote Biza ak Fanar bagna je pense alors lan mo aussi li ngeen euh, wax ci webinaire pop non quoi. donc webinaire Bob non, c'était assez intéressant parce que webinaire bi euh, mom daf ñu doon wane naka la ñu mën suñu internet. Mm-hmm. donc tey par exemple surtout aspect bonne pratique aspect euh, bonne pratique yi ak hygiène de vie en ligne ak surtout tey par exemple politique de mot de passe yi logiciel yi ngay euh, fan nga war a dugg foo waroon dugg ainsi de suite donc en général loolu lool moo tax webinaire boobu c'était tellement intéressant et nit ñi yëpp waroon nañ ci bokk parce que da lay permettre nga mën am benn vision ci ci aspect yu bëri yoo xamante nit ñi dañ koy négliger dañ koy négliger alors que tey par exemple négliger boobu noonu ñuy def yenn saa yi nañu lor et et et c'était tellement intéressant webinaire am parce que euh, genre question réponse la def débat moom bu mu exposé ba pare après dafa bàyyi nit ñi di poser question nit ñi di laité ah man tay naka la mune def pour protéger sama compte mhm. naka la mune def pour euh, sama données yi euh, du retrouver ou dans la rue naka la mën def ceci cela donc et bon parce que vie privée c'est c'est assez délicat en ligne da ngay gis ni par exemple euh, man damay jékki-jékki ñaata nit ñoo xamante ni compte yi piraté nañ ko mhm. et et gars yi jël nañ ko di di def naka sudul nonou ñaata nit ñoo xamante ni euh, jël nañu photo nit partager te nit ki neexu leen euh, wala wax lu pour en alors que actuellement ngi def euh, mais loolu parce que xamuñu lan limite vie privée nga défendre sa vie privée ainsi de suite donc donc webinaire bi c'était intéressant et nit concentrer on na je propose une solution On na nit ñi enjeu yi et mm-hmm. def na différence entre vie privée vie publique ak mm-hmm. lépp luy tourner autour du pot ok macha Aristote c'était Aristote euh, Lucie Bissa ak Fanar Bandia mon nekkoon modérateur bi et je pense que après mun nañoo am sax euh, seen contact yi ñoom tu vois pour mun ko partager aussi ci euh, notes nga xamante ni auditeurs yi à chaque fois dinañ mën mën a contacter aussi euh, ginnaaw bu ñu seetaanee affaire yi ba pare mën leen euh, voilà contacter pour plus d'informations parce que je pense que euh, mbir mi warul yem foofu war na am continuité bu nit ñi amee contact pas intervenant yi mën nañ leen poser question gën a yaatal gën a waxtaan et je pense que sax mën na mën na mën na dem sax ci beneen mbir moo xamante ni lu am solo lay doon n'est-ce pas mhm. alors je pense que Gérard am na beneen événement boo leen organisé le jeudi 28 moo nekk dernier bi euh, mu nekkoon benn événement boo xamante dañ naan wax ci technologie ak cyber risque ngeen àndaloon ci ak Souleymane Ngom alors man mi personnellement sax waroon na bëgg naa xam bu baax euh, voilà événement boobu lan ngeen ci wax tu vois euh, lan mooy cyber risque ak yu demee noonu ngeen xamante ni waxtaan ci ak Souleymane Gom lan ngeen jot lan moo jotu génn comme xam-xam ci ci tënk ci événement boobu noonu. voilà donc événement jeudi bi. Mm-hmm. dafa nekkoon événement boo xamante ni c'était très intéressant parce que. tey nii par exemple gestion des risques Souleymane Ngom dafa dafa teg en place concept yu bëri biir concept yooyu noonu am na concept boo xamante ne après débat si parce que ñu bëri laajte nañ ko laajte nañ ko si si si si si si si procédure yi ak ak pas mal de choses et am na concept bu ñuy woowee le zéro trust zéro trust dafa nekk concept boo xamante ni euh, admin bi genre du joxe confiance kenn genre moom day day configurer système d'information suivant moom réalité am suivant moom restriction yu muy def ak bañ yu muy bañ ok donc du coup euh, ñu bëri débat nañ ci loolu après moom côté position am gis na que zero trust dafa nekk concept boo xam dafa xaw metti parce que boo joxulee kenn confiance est-ce que tey nii sécurité booy teg euh, wóor na euh, mu joxe tam yeneen concept yu bëri yoo xamante ni yëpp day participer pour protection mais wax na benn affaire bu bu am solo mooy affaire boo xamante ñu bëri dañ koy def par exemple may ñëw ma ne euh, am na lu ñuy woowee politique de sécurité des systèmes d'information mooy benn document boo xamante ni mooy protéger euh, ce ce réseau léegi damay ne par exemple Ibrahima jox ma ko nga jox ma ko au lieu que ma ñëw xool est-ce que loolu noonu bokk na ak man samay propre réalité non non dama koy jëlee rek appliquer alors que tay par exemple man lu may protéger sama système d'information est-ce que bokk na ak yow noy protéger sama boss et donc fofu le fay di guen donc mu expliquer lolu mu ne nit ñi nañu moytu lolu ñi mën di ñi mën di vraiment tek ay affaire yo xamante en fonction réalité et après man ma dugg def ben résumé pour woné que voilà aspect yooyu noonu yépp certes c'est bon manam tay par exemple man le fait que may utiliser li ak kii muy utiliser li taxul Li bar nan wale li bar koun Me Lan mwen si gana amsolo Mwen lak nge kèy itulize Ak yow lan nge boukou koukina Nini boukou kis E apre lol webinar bi an dekou Mashallah non mais je pense que webinaire boobu aussi am na solo trop trop trop so parce que comme li nga wax non euh, euh, day montrer tayal bi nga xamanteni ni ñi tayal nañ ko tu vois dem jël copier document wu jàmbur rek aca appliquer ci sa entreprise alors que euh, ce système d'information am na yeneen critères yu nekk yoo xamanteni ni bokkul ak keneen euh, et je pense que loolu jar na bàyyi xel bu baax a et je pense que séminaire boobu aussi euh, na seetaanaat quoi et je pense donc du coup séminaire yi nga xamante organisé ngeen ko organisé ngeen ko ci semaine bi yëpp euh, dinañ ko am après ci benn plateforme n'est-ce pas pour mun ko euh, seetaanaat en replay. waaw gis na sur forme de web TV. comme ça mën a kii. ok ok ça marche alors donc ñun fii ci podcast résumé yi nga xamante ni jot nañ ko def yëpp incha allah euh, di ngeen ko am ci site woloftech.sn tu vois ci réseau yi bon demee di ko gis tu vois dina ngeen ko mën a déglu xam am benn aperçu ci lan moo xewoon ci semaine yi mais. pour ngeen xam exactement lan la fa gars yi wax lan la fa intervenant yi wax il faut ngeen dem euh, ci plateforme Root SN yi tu vas ci octobre cyber 2022 euh, bi pour mun a déglu exactement li nga xamante ni moo xam-xam yi fa jot a rot alors Gérard tey jii nii soo doon dox ci tënk euh, événement bi yëpp yëpp yëpp bilan bi yow naka nga gisee événement bi naka nga ko dundee ak lan nga ci. gis li nga xamante ni moo gën am solo euh, mais aussi lan nga gis ne aussi war nañ ko améliorer ci biir euh, amel événement bi nga xamante ni moom jot ngeen ko def muy octobre cyber 2021 2022 euh donc tey su ma doon def résumé euh événement yëpp donc balaa sax may may commencé foofu noonu am benn bu ñu fàtte mooy def ak ONG bi ah donc okay, euh, moy irréputation bi donc non da dañoo don wax vraiment naka le hmm. nit di hmm. protéger bopam en ligne donc euh, surtout su nek da ngay liggéey ci ONG donc euh, am na benn célèbre acteur bo xamante acteur éthique Clément Domingo bu ñëw intervenir bokkoon na ci intervenant yi donc expliquer na vraiment euh, lu nit ñi soxla expliquer na vraiment type d'attaque yo xamante ne nit ñi dañ koy gis ci ONG yi ainsi de suite hmm. donc donc après moi am euh, man tamit ma intervenir donc ma def benn genre concept philosophie mooy mhm. le moi le surmoi et le ça donc wane que moi bi mooy man man lan laa bëgg léegi ma am benn division entre sama surmoi ak sama ça sama ça mooy koo xamante ne daf may ne defal lu la neex sama surmoi moo may ne ah respecter règles yi ainsi de suite donc loolu lañu jël ñu déporter ko en ligne pour expliquer tey nii par exemple même bu ma nekkee en ligne tamit dinaa nekk dinaa départager wu si loolu dinaa sam benn xel bu nekk si ginnaaw bu may ne ay eh, deful lu la neex defal lii moom am sam beneen partie xel bi bu may ne hmm, moytul de fii nii bul def nii ainsi de suite donc après ñu mun a xool juste équilibre bi léegi si webinaire bi wane nañ que vraiment organisation yooyu noonu ils sont victimes de beaucoup de choses parce que ñu bëri dañu xam que si biir ONG xaalis bëri na fa. Mm-hmm. et nit ñi bëgg vraiment nuire gars yi et après ñu wane que tey par exemple même yow booy liggéey ci genre organisme yu mel noonu war a soigner sa image en ligne même xool nit yi ngay àndal parce que tey nii par exemple da ngay joxe benn exemple bu ñu joxe foofu noonu yow par exemple da ngay nekk yow da ngay défendre environnement da nekk si benn ONG buy défendre environnement nga am sa benn xarit boo xamante ni moom contraire bi la moom mu ngi wane ay vidéo yoo xam day dagg ay garab day def lu nekk léegi benn bés mu def benn vidéo bu reetaan boo xamante yow da ngay cliquer sur j'aime bouton boobu nga cliquer bu dafa am ñeneen ñoo xam ne dañu nekk des chasseurs de tête mun nañ ko jël def capture wane ne Cologera dakate lu muy nekk mu ngi liggéey ci environnement muy xaritoo par exemple ak diw diw yoo xamante yàgg na def lii def lii et ça te détruit loolu sax mun na tax sa liggéey tey sa liggéey yàqu parce que dana ne ko yow bokk tu es contraire aux valeurs de l'entreprise et pourtant ko kooku sa xarit la rek bon yàgg nga garder ay relation ak moom du coup jour boobu da nga def j'aime nii rek voilà nii moo tax yenn saa yi ñu wane sensibiliser boobu noonu certes di nga di nga am na liggéey yoo xam ne boo koy def moom am na lu bëri di nga ko bàyyi parce que na nuire vraiment si sa réputation en ligne et et et c'était ça en gros euh, ñu wax loolu après vraiment ñu ñu euh, clôturer en beauté et vraiment Clément wane na aspect yi parce que mon il est vraiment sibir euh, sibir monde hacking bi il est mhm. actif et comprend na enjeu yu Et et webinaire il y avait plus de 60 participants et c'était c'était vraiment cool tamit macha allah mais non mais je pense que lol moment nek na loo xam am solo parce que voilà protéger sa vie personnelle c'est hyper important surtout yo bu féké dafa wara dem sa ba mun a impacter euh, sa fi nga xamante ni foofu ngay suturlu donc loolu jar a bàyyi xel la fi nga xamante ni foofu ngay amee euh, sa sutura fi nga xamante ni foofu ngay participer parce que je pense aussi que benn affaire lay préciser sooy liggéey ci benn entreprise c'est parce que yaa ngi partager say valeur ak entreprise boobu c'est-à-dire valeurs yi entreprise bi di défendre yow yaa ngi koy partager mu ngi mel ni comme exemple bi nga joxe yaa ngi liggéey ci environnement je pense que booy liggéey ci environnement aussi euh, entreprise boo xam ne environnement il faut nga partager même valeur yi parce que nit ki mënoo nekk di liggéey moom peut-être yéen ñaar bokk leen gis-gis tu vois je pense que c'est un peu contradictoire alors boy ligue ci entreprise nag te bokk ak ñoom gis-gis war nga euh, protéger sa bop ba nga xamanteni aussi euh, dara du wara mëna yaq sa ligue ak li nga xamanteni war nga ko mëna contribuer pour entreprise bop jëm kanam ngeen ba ando xex li nga xamanteni mom mo nek seen ay euh, seen ay affaire quoi alors je pense que boobu tamit am na solo alors Gérard donc léegi ñu ñëw ci bilan bi c'est-à-dire question bi me la poser woon sank lan nga mëna tay tey tënkee li nga xamanteni gis nga ko dund ngeen ko ci biir événement bi yëpp maanaam octobre si wetem 22 bi ak lan nga gis ne euh, ça s'est bien passé mais aussi lan nga xamante ni gis nga ko loo xamante war nañ war ngeen ko gën a mën a yokkaat mais aussi seen relation aussi ak nit ñi est-ce que teewoon nañ bu baax su fekkee teewoon nañ bu baax wala remercie bu baax su fekkee des na aussi lan nga mën a wax population sénégalaise bi pour que benn yoon gars yi mën a ñëw bu baax a baax donc euh, merci pour question bi donc pour pour pour bilan bi hmm, man dama koy diviser en plusieurs catégories dafa am bilan humain euh, mhm. bilan humain bi dafa am si biir bilan humain boobu am na benn partie boo xamante ne bilan équipe man ak sama équipe vraiment man ñooñu mënu ma leen remercier parce que ça a été des jeunes yoo xamante ni bokk nañ si projet bi volontairement amul kenn koo xamante ni jël naa xaalis ne la am fay naa la euh, chaque fin du mois ñoom dañoo jël projet bi porté ko et événement bi réussir na comme nous mu la ko waxee y avait plusieurs teams am na team boo xam te moom moo doon def développement bi ñoom ñoo teg site bi en place euh, mu am beneen team boo xam te ñoom ñoo doon def communication bi mu am pas mal de team yoo xam ne dañoo organiser wu institution mu am tamit sama ñaari lieutenant yoo xamante ni vraiment ñoom dañ si jàpp dem naa fi Inde. Hmm. ñoo continuer gérer affaire yi parce que décalage horaire bi ak yooyu yëpp dafa doon métti. Ah. muy monsieur Bilay Tine et mademoiselle hmm. Léna. ok macha allah. jàpp nañu si si événement bi carrément. et dañ si dem ba jeex amuñu benn bu may dem sax dooroon naa nelaw si jàmm parce que xam naa que ñoom ñu ngi gérer et vraiment loolu bilan équipe boo xamante ne ça buku buku beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup euh, rassuré si beneen bilan humain bi mooy bilan de participation bi euh, tey mun naa ne au moins euh, c'est assez satisfaisant parce que am na heure yoo xam te dañ ko doon def heure yooyu day fekk nit ñi soit ñu ngi si yoon bi di soit ñu ngi liggéey mm-hmm. mais malgré cela am nañu ay participation du taux boo xam ne day dem ba vingt cinq ou trente personnes yu doon participer et et ça c'était vraiment intéressant parce que vu heure yi ñu ko doon def am na si yeneen situation yoo xam ne doo am nit donc tey bilan boobu noonu mooy je suis assez satisfait parce que nit ñi dinaa nekk nit ñi ils sont assez intéressés par par événement bi mm-hmm. léegi dinañ xool vraiment naka la ñu mën a trouver benn solution pour nit ñi gën a participer Euh, par rapport ak webinaire yi bu nekkee si beneen bilan stratégique euh, ak euh, financier et ainsi de suite donc bilan stratégique bi tey mun naa ne au départ j'ai ciblé pas mal de personnes ressources pour vraiment ñu mun a appuyer projet bi mais dafa tombé si contexte boo xamante ni c'était un peu compliqué et démarrage projet bi tamit ça ça pris des lenteurs donc loolu jox na ma leçon boo xamante ni pour deux mille vingt trois bi moom démarrage projet bi dina gaaw. Mhm, et dina permettre pour personnes yooyu gën a euh, préparer wu pour mën a jàpp si projet bi. donc euh, ministère bi répondre na mais teelul répondre mën naa ne tey fekkoon teeloon naa commencé je pense dinañ répondre à temps balaa événement bi di di démarrer et ñoom surtout ñoom war nañ mën a porter projet bi parce que tey nii c'est Sénégal qui gagne. Euh, et à travers partout dans le monde nit ñi ñu ngi doon organiser Octobre Cyber et mos naa gis benn nit posé ma benn question en me disant que lu tax ñuy célébrer euh, Octobre Cyber boo xamante ni mois européen de la cybersécurité la mais après dama ree tontu ko ne ko tey informatique boobu noonu muy def est-ce que am na informatique africain wala informatique asiatique ainsi de suite informatique benn la cybersécurité benn la donc hmm. tey par exemple bu nekkee benn muy Afrique muy feneen dañoo am concept bi rek wax ko rek la cybersécurité nous concerne tous donc képp ku lance képp ku ko lance ça veut dire que ñëpp si bokk. et donc que ça soit moi européen de la cybersécurité c'est moi africain de la cybersécurité ainsi ah donc ñun octobre on est convaincu que c'est le mois de la mm. cybersécurité donc man du ma ko changer. Mm-hmm. voilà parce que c'est des choses yoo xamante ni c'est international c'est des choses yoo xamante ni tey mm-hmm. par exemple man dem naa ba Inde. Mhm. système d' exploitation mu fa doon gis c' est la même chose mais gis fii si sama machine et j'étais pas dépaysé. Ouais, donc mhm. dafa nekk leen loo xam ne unicité donc tey du du ñu ne par exemple européen ñooy def tey fii seen cybersécurité. Mhm. beneen mois bi ñu ne ñun Afrique ñooy def suñu boss et ainsi de suite. après du am sens. c'est généralement donc loolu la et vraiment bëgg naa Sénégal adopté affaire bi de telle sorte que mu nekk mois boo xamante ne buy jot. même président bi dina ko porter parce que tay enjeu cyber yi nekkatul lo xamné ne dañ ko war a def ben sensibilisation de masse bo xamante ni ñep ñep ñep dinañ ci bok donc mooy loolu bilan financier bi bon duma ma si wax lu bari parce que comme nous l'avons événement bi ça a été euh, truc volontaire certes am na yoo xam te génn poche et tout mais mm-hmm. c'est avec la passion c'est dans servir le pays mm-hmm. c'est dans le but boo xamante ni euh, mm-hmm. de le faire te yàlla tax parce que mhm. tey man lu xaar moy au moins man suba même si je devais quitter la terre wala loolu dina am conscience bo xamni ñane amna na empreinte bu ma bàyyi te empreinte boobu noonu mooy vraiment changer les mentalités tey nii euh, xoolal dem naa euh, xam naa di nga ne fan yii fan yii moom dama diw beurre bi ànd mais. <laughs> non mais c'est normal c'est normal parce que voilà. li nga parce que bu ma demee foofu. Mhm. bu ma demee foofu noonu gis naa que amul fooy jaar fooy tourner doo gis Mohamed Gandhi. gan gars yi dañ ko koy siggil am amul bâtiment administratif yoo duñ dem ba doo gis kanam gandi wala affaire yooyu noonu parce que Gandhi bu mu leen apporter la indiwul xaalis wala affaire yooyu mais dafa changer seen mentalité dafa indi benn genre tey Inde nu mu mel c'est grâce à lui moo tax ils l'ont soulevé carrément moo tax dans la vie c'est pas toujours xaalis mm-hmm. moo leen liggéey avec les personnes mais li ngay valeurs yi ngay dégager la te loolu il faut ñu cultiver ko Afrique valeurs yi ngay dégager Euh, pour nous mener changer les mentalités. Machallah, ça c'est sûr ça c'est sûr non mais euh, franchement euh, euh, li nga wax ni am na solo trop man dama content. trop trop trop trop ci participer ci affaire bi tu vois. parce que sécurité dans na loo xamante ni dafa am solo trop ci waxuma la sax pour nit ki ci boppam mais ci réew mi yëpp quoi parce que réew mi ay nit ñoo ko ñoo ci nekk ay ay ay ay ay ganaar nekk ay ganaar ay bon je dirais pas ganaar mais nekkul ne ay dafa fi nekk wala can mais réew mi nit ñi fi nekk ñëpp tu vois da leen concerné et ça ça fait le Sénégal man nag dama nekk ni koo xamante ni j'aime beaucoup le Sénégal lu may wax Sénégal dañ lay jiital tu vois tey lii nii nekk na loo xamante ni Sénégalais yëpp dañ ci war a mën a gis seen bopp Sénégalais yëpp dañ ci war a mën a participer parce que ne serait ku ci nekk yaa ngi sa téléphone di kàcc kàcc rek voilà ku ci nekk yaa ngi sa gannaaw sa téléphone di kàcc kàcc rek war nga soucier wu ci sa sécurité tey sa sécurité ëllëg te li nga xamante ni mooy événement yi ñuy def nii ak Gérard Dacosta tu ak waa Route SN nekk na loo xamante ni da leen yee ci seen sécurité heure boo teewee sa téléphone. war a def loo xamante ni naka sa dóor noonu la wala wala nga wala nga gis ko la bëgg arnaque wala nga gis ko la bëgg def benn affaire di nga mën a conscient ci loolu nga xam ne ah lii de waruma ko def parce que lii war naa ko def tu vois alors tey loolu nag bokk na ci début wu développement man man sax noonu laa koy waxee quoi c'est-à-dire développement foofu lay njëkkee cest à nit ku nekk conscient ci li nga xamante ni moom lay def développement foofu lay njëkkee amee rek wala ñàkk xam su amee rek développement dina yéex

balaa muy def benn affaire tu vois donc lu nekk na loo xamante ni lu am solo la et maa ngi lay remercier bu baax a baax di remercier sa équipe bi yëpp ci lépp li nga xamante ni def ngeen ko ci événement bi et je pense que ça sera comme li ko xarala di waxee rek rendez-vous au sommet incha allah mais Gérard avant ngay dem avant ñu quitté wu bëgg naa xam aussi lan lañ mën a xaar ci route euh, SN euh, ci ci ci ci ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi des voilà ci fan yi di ñëw wala ci mois yi di ñëw wala ci voilà avant ñuy demaat ci benn cyber 2023 incha allah Euh, vraiment comme perspective yi mooy lu may wax ah. bëgg naa vraiment que état bi di porter projet jeunes yi. Mhm. Euh, ñoom tey c'est c'est assez compliqué hein ça ñoom bu ñu naree démarrer ay projets et tout mais jeunes yi am nañu passion bi am nañu cadre bi et tout ñoom ñun lu ñuy xaar si ñoom mooy juste ñu joxe seen autorisation joxe financement bi porter projet jeunes yi et jeunes yi lu si des ñoom dinañ ko defal seen bopp parce que da ngay gis ñoo xamante ne à partir de rien dañuy réaliser lu nek par exemple octobre cyber bi c'est pas parce que nous avons organisé, et tout mais depuis le octobre er octobre, 31 mhm. octobre. on a fait pas mal de webinaires on a fait pas mal d'activités on a fait pas mal de choses et lolo avec un faible budget donc imaginez tey bu ñu un budget qu'il faut un accompagnement qu'il faut euh, Même même parution télé ça on a fait presque trois apparitions à la télévision on est allé parler d'Octobre Cyber et mm-hmm. tout mm-hmm. et ça euh, parce que nous, avons dañ si ce concept donc appel boobu non laay lancé si autorité est en train dina ko et tout la cybersécurité ça nous concerne nous tous Si une question France si constitution réviser après défense du territoire cybersécurité est en deuxième C'est ordre de priorité nationale donc loolu est wane tey enjeu cybersécurité du pour caaxaane Mm-hmm. dafa nekk leen loo xamante ni tey état bu nekk daf ko war a jël au sérieux pas mm-hmm. bàyyi ba bu teef bi amee ba pare ku nekk di daw gauche droite pour xool naka lañ ko war a gérer léegi-léegi lañ ko war a di anticiper tey dañoo war a jàpp Sénégal gis ko comme benn genre vaste système d'information boo xamante ni dafa am ay nit dafa am ay équipement équipement yi mooy lan téléphone ordinateur et yooyu donc naka la tey ñu koy protégé état yu bëri def nañ ko en place état yu bëri ñu ngi contrôler données population pour le monde comment même protéger la population et tout et mhm. l'eau il faut tamit Sénégal def ko parce que loolu yëpp préparé préparer aussi si si si défense et puis ay temps Sénégal nous xamuñu non non non mais les xolé il y a eu plus d'attaques parce qu'actuellement au niveau international les gens parlent du Sénégal que ça soit au niveau du football et dina permettre ay nit yo xam de ñu commencer orienté wu est ah le Sénégal à nous vérifier ni lan la am mhm. donc tey quoi qu'on dise dinañ yegg période boo xamante ni chaque jour dinañ am ay attaque cyber États-Unis mu ngi nii ñoom chaque jour ñuy nelaw du presque duñuy nelaw dañuy am attaque Chine fu nekk la attaque yi di jóge parce que dañoo nekk dëkk boo xamante ni ñëpp dañ leen di ne une puissance mondiale donc nit ñi dañ leen ne xaar moo leen est-ce que yéen ay puissance mondiale donc tey nii par exemple ñun perspective bi même ak wolof teg je pense perspective bi waxoon naa la ko mooy tey est-ce que duñu créer benn podcast spécialement cybersécurité si, donc si, les week-ends cyber wala je sais pas les lundis cyber yoo xamante ne vraiment dinañu permettre ñuy waxtaan si ay cas réel ay cas yoo xamante ni par exemple ay thèmes par exemple ay thèmes cyber harcèlement joxe exemple wane nit ñi que dafa am lu xew si la fo ñuy invité ay victimes même bu nekkee dañuy du ñu wax seen tur mais dans l'anonymat ñu wax lan la ñu dund ban mentalité la ñu amoon si et ces personnes là mun naa leen indi parce que tellement de dossiers yoo xamante comme je suis dans ce monde là nit ñi dañ lay woo mhm. expliquer la ay cas ay cas yoo xamante ne yenn saa da ngeen ne du dëgg tant que nit ki ñëw ko wax doo ko gëm et ce serait bon population bi di déglu loolu pour mën a jël conscience mën a xam danger ak risque boo xamante ni am na si si si biir si biir loolu te tamit idée bi tamit mooy comme nu may wax idée finale mooy tey concept route SN mu nekk benn genre identité tey képp koo xamante ni war nga def benn juumte wala benn affaire di nga ne ah route SN ah waa route SN ainsi de suite donc benn genre identité au Sénégal de telle sorte que tey par exemple ku ku wax route SN rek automatiquement dina la renvoyer ah ñi ñooy protéger nit ñi si cybersécurité ñi ñooy aar gars yi ñi ñooy conscientiser mhm. loolu loolu vraiment mooy suñu ref créer benn communauté vraiment boo xamante ne mhm. euh, ñoom seen seen liggéey mooy pour lutter dérive yi ak mhm. ñaawteef yooyu yëpp ñuy alors je pense que si euh, euh, Gérard euh, je suis vraiment content franchement content trop et li ni je pense que am solo bu baax et je pense que li nga comme perspective yi dinañ ko atteindre ñun ñëpp et dernière affaire bi nga wax je suis à 200% d'accord avec toi voilà pour def ay affaires que ça va faire ay week-end cybersécurité parce que nit ñi gis exemple pour gëm tu vois foog ñu dégg pour mën a gëm tu vois donc du coup lool mom je suis hyper euh, content pour refco ak ak il y a pas de souci on va en discuter pour xool nag lañ mën rapidement parce que comme ni may wax rek aduna bi toll na foo xam dafa gaaw donc il faut que ñun tamit ñu gaaw tu vois nek aussi dans le dans dans dans ci move bi quoi mais c'est hyper important man lay remercier bu baax bax yow tamit ci li nga accepté ñëw ci euh, podcast bi partager ak ñun euh, mois bi yépp ñu def ay épisodes yu bari def nañ 4 épisodes ci 4 semaines yi tu vois et je pense que loolu am na solo bu baax bax euh maa lay remercier bu baax encore une fois di remercier euh, Kilay Tine bi nga wax légui ak Lena Samb ci li nga xamanteni japp nañ ci ci ci ci programme bi mais aussi yeneen équipe bi yeneen ñi nekk ci équipe bi yépp nga xamanteni japp nañ ci projet bi ba mu dox alors lan moo nekk sa mot de la fin avant ñuy tëj épisode bi. bon man sama côté euh, mot de la fin mooy comme ni may wax ah. mhm. sur internet euh, rien n'est gratuit. Mhm. quand c'est gratuit c'est ouais. le produit. exactement parce que instant yi nii instant yi nii nit ñi euh, lan moo tax yeneen cyber hacking yu bëri euh, di xew c'est parce que nit ñi dañoo bëgg lu yomb waaw il faut ñu wax ko tamit il faut ñu wax mooy comme numu nu mu xewee parce que tey yow am na benn genre arrière pensée am na benn genre arrière pensée booy yor il faut que yow si sa xel yenn saa yi ngay ñaaw njoot tey nii mënuñu la yónnee benn lien rek ne la Coca-Cola mu ngi offrir ay nit téléphone gaawal dem inscrire mun nga bokk si ñu koy gagné. Mm-hmm. boo inscrire ba pare ñu ne léegi boo bëggee gagné téléphone bi foo nga joxe lii. yow tey si sa xar bi koo xamante ne dalay may autant mu lay laajtee benn somme xaalis wala koo xamante ne tey bëgg na la jox ay matériel ay cargo jëkkëram deen affaire bëgg na la jox xaalis bi yëpp mais tax mu lay laajte xaalis pour mun a régler dossier yooyu noonu xaalis boobu kay mu la bëgg jox na na tibb si moom mu régler dossier yooyu noonu euh, jox la ko mais dafa am ñeneen ñoo ñoom dañuy cultiver bëgg lu yomb boobu noonu te baaxul tey ni yow tey ni tuuti da war a di dute da nga war a di dute da mm-hmm. di moytu mm-hmm. te loo xamante ni bu ko tamit ñu def ko bu ko bu ko def sa morom et yow loo xamante ni tàmmoo di ko def euh, ci vrai vie bu ko def tamit en ligne tey nii doo gis nit simeeku carrément simi yére mi yëpp génn di doxantu si àll bi nii nu ko neex dañu nekkoon da nga doof wala ñu asile la léegi tax ni ñi di ko def biir internet boo xoolee biir internet presque loolu boo ko defee buzz la nit ñi dañuy sa compte surtout jigéen ñi dañuy dugg sa compte dañuy xool di nga am abonné yu bëri sax et et c'est contraire parce que tey nii soo ko defoon si dëkk si vraie vie nit ñi da nga dof dana def na def na waaye ça c'est sûr <laughs> donc du coup nit ñu moytu man appel boobu noonu laay am di wax gars yi te wax leen que man du ma mos sonn si ñoom dinaa toujours dinaa leen sensibiliser dinaa leen accompagner dinaa leen former voilà et actuellement je pense next step comme ni nga ko rek yu ci beuri dina xalaat yeneen next step yoo xam dina gëna influer gars comme influenceurs yi tamit dina nek sama cible ak euh, entrepreneurs ak personnes yo xamanteni euh personnes important yi euh, yëpp ñu jéem leen sensibiliser former leen accompagner leen donc projet bu rëy la nu si ku nekk japp comme ni je suis open hein. ku ñëwoon sax gën ma bëgg route SN sax ma ne la jëlal. waaw senegal c'est sûr rek. Euh, voilà ñu bàyyi vraiment xot yu xal yi euh, yu euh, xol yu xat yi ñu booloo ànd liggéey Sénégal jëm kanam appel boobu noonu la am di wax gars yi. parce que liggéey bi ñu ñëpp benn la. macha allah Machala, allah Gérard merci beaucoup franchement euh, euh, euh, ma lay remercier bu baax a baax ci li partager pendant presque une un mois tu vois nous ngi ensemble demoon nga indi après nous nekkat ci affaire avec nous, ñoom et tout ça maa ngi remercier bu baax a et nous je pense que ne bientôt dinañ ñu gisaat au fait ci affaire ci la sécurité ak waa route SN Inshallah, je pense que mun na nekk te yàlla allez merci beaucoup les amis Nous ngi leen de rendez-vous Inshallah. allah beneen week-end et je pense que aussi naa leen wax na leen aussi euh, euh, week-end prochain nous ngi préparer à affaire yu best tu vois maanaam suñu dixième euh, saison euh, wala podcast wolof tech euh, saison 10 bi nag dinaa leen wax incha allah après ci lan la ñuy waxtaan ci mbir mu ama am solo loolu loo xamante ni dafa xew léegi si jamono et je pense que après dinaa leen dévoiler euh, lan mooy titre saison 10 bi incha allah allez merci beaucoup passez un très bon week-end et lundi ngeen dem liggéey bu baax bu baax jàll si jàmm salaam te def attention nag ci sécurité bu baax a baax ngeen def attention ci seen téléphone yi seen mot de passe yi whatever d'accord allez merci beaucoup ciao ciao passez un très bon week-end à la semaine prochaine inshallah Merci.